seytaane rajim yi bisimilah rahmaan rahim yi ñu delluwaat sant yàlla julli si sangu sang yi Seydina Muhammad sant suñu ñaar waajur sant suñu wasila Seexul Xadim di leen nuyu baax di leen ziar yi ñi nga tey nag ah, ci màggalu Soxna Sugaan demoon leen soxna maam Isa Mbàkke Ahlu Kafe fekk bi nga xam ne mat na ko lool ca mate ko ndax dañ ne Soxna Sugaan nu mu laal moo gën nu mu laalu tey fii nag ñi ci biir kër gi ci fekk fi asugawaan yi boo dikkee boo ne asugawaan ñëpp lay wuyu asugawaan yëpp fi nekk mu nekk nag bis boo xam ne ñoom dañ koo fonk ci nga xam ne moom la ni màggale seen seen bàjjen ndax bëggoon nañ koo fekke ba fekkanteek moom jamono man koo liggéeyal comme ñun nin fekkanteek Serigne Mountakha ba mën koo liggéeyal ñu doxoo fii nag ci jëwriñ waa waañu yëpp ku dugg ci waañ sa yaram dafay daw da xam ne soxna Astou Gawane yàlla may may na ko njabootug baatin may ko njabootug saayir waaye Astou Gawane da sopp nañ ko loolu te bëgg ko moo war ñu sos seen kuréel gi nag nekk ñoom ñëpp nag ay soppe ak bëgg-bëgg ak gëm gi nga xam ne gëm nañ ko Cheikh Astou Gawane ci lim leen di dimbale ndax saa su ne ku jàq ci ñoom soo xoolee sa turandoo rek macha allah ca ca mbaax ga ca dëgg ko ak kafe gam daan joxe ca la daan joxe ci jotaay bi ne ànd ceeg sama rakk ndax nit ku nekk dan ne kala dar dangay ngay xam kala dar mu dar la moo tax sama rakk di dar ma ñu bokk nag lépp mu doon sama rakk bokk ci daayira bi man may soxna jaara kon am soxna jaara bu ñëwee ci kër soxna sugaan mën naa ne ñu fekk fi nag ay jëwriñ ñu soxna nag jox na soxna su ñuy nag ci jëwriñ yi mu wax taxawaay bi ak lan moo waral liggéey bi sell bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci kër Soxna Astou Gawane ci màggal Soxna Astou Gawane gi 2021 Soxna Astou Gawane Thioune kon fi Astou Gawane yu nekk fee kon ñu ne ñëpp bàjjen Thioune rek kon bàjjen Thioune yàlla na jox kàddu gi barkib soxna yi sotu Gawane Mbàkke bintu Xadimal Mustafa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu soxna jaara ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay ziar di la delloo wax jaajëf di sàkku ci yow ñaan ngir soxna jaara sa maam mooy suñu maam muy sa turandoo di ñaanal yow it sa jëmm ji yàlla may la aaju yu faju ak mbir mu jub télé bii nga nekk it nga gis ci lu kawe sa njort jëwriñ ji gis ci lu kawe njortam ñu fab nuyoo waa télé bi yëpp teg ko ci sab loxo nga jotaloon nu ko ci jëmmi ji nga xamante ne mooy sa rakk di sa mbokk di sa xarit euh, ngeen rafetal ko ba nga ñëw ci kër soxna asugawaan gi fekk ko fi muy soxna asugawaan sekk jaayante euh, ci daayira soxna asugawaan bi nag la ñuy wax kon tey waaye gis jàppal goo gis am na jàppal diw soxna asugawaan sekk mi di asugawaan jaayante bi mu duggee ci biir kër gi mu duggee fi jaayante di fi def di fi wax di dox teraanga di def teraanga ànd ak ñëpp doon ak ñépp jàmm ànd ak ñëpp ci teraanga ak jàmm. naka ngeen di waajale bis bi. ñun ni ñuy waajale bis bi bàjjen mooy dañuy teele ñëw daayira di teg di saafonte di waxtaan suñu programme mu déwén nu muy demee ñu di ko wax di ko wax. ku war a lal yaa nga ci sablal fonk ko ku war a lal yaa nga ci sablal fonk ko ku war a nekk ca waañu yaa ngi ca waañu fonk ko ku war a ndugg ma fonk ko koo xamante ne day toog comme man ni ma toogee ne ca baax ba sama bàjjen mi jël si ma ma nekk foofa di saytu xaalis bi ba tey man tamit maa ngi nekk foofu lii njëlbeenu ko bis bi nag muy fond muy baas bi mooy wàcce kaamil ak jàng arxuraan togg ay ñam di bernde jël kafe ak sëñ Touba gi nga xamante ne da koo bàyyi loon suñu bàjjin ba soxna su gaawaan ñii ne ñetti kilo ñii ne ñaari kilo ñii ne benn kilo ñu jox ko sa maam xari Jóob mooy yaayi soxna su gaawaan na ko dental ko xañ satu bu ëllëgee dina ko soxla dina ci faj aajo jaam yëpp ba léegi nag kafe googu mi ngi dem waaye ajo yooyu mi ngi faj ci ku ko gëm te naane ko na la ko soxna su daan joxe nga naane ko noona am pas-pasum ne soxna su gaana la ko jox te day faj aajo nga ne danaa ci fas yéenee faj samay aajo café gi de ba tey ngi faj ay aajo waaw moom moom soxna jaar moom maa ngi la koy leeral daal 2021 réew mi ni mu demee ngeen màggale ko nii mhm. di togg ay berne di joxe di dalal gan ñi mhm. waaw liñ ne liñ ne mbirum sëñ Tuubaa xamut ñoo ci yem mbirum sëñ Tuubaa xamut bekkoor ndax daaw ci la affaire yi gënoon a naju te teewul luñ def luñ war a def dañ koo def fu màggal gi war a egg dafaa egg kon mbirum sëñ Touba xamut bekkoor 2021 bi nii ñu ko defee daaw ni leen ko defee ne te incha allah ñoo ñaan suñu bàjjen bu baax yi defee ko nii déwén te yaakaar naa ne déwén nit mooy gën a dàq incha allah. waa kay jërëjëf asugaan ñu la. sant suñu turandoowu seetlu wax fii nag moom li ñu fi andi bisu tay bi muy suñu bàjjen bu seetlu ba di bernde di def suñuy daayira di teew gis nga ko di ñu ko defee nii bekkoor bi moom. macha allah boo fi ñëwee da nga naa bekkoor amul ndax ñëpp comme niñ ko daan defee rek noonu lañ ko defee ku nekk lañ ko daan def daaw tey lu ko raw nga def kon nag ñu koy sant suñu baajam bu baax bi di ñaan yàlla fayal ñu ko ak suñu tu waajur ya nga xam ne moo ñu ko tudde di sant ñëpp di gërëm dañoo mëneewul wax nag dañoo nekk jawrin te mëneewuñ wax sant nañ la maam jaara gërëm la seen site bi yal na nekk télé sant nañ leen bu baax a baax